procès arbitraire, suivi de trois longues années de prison, m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. Cette séparation brutale avec notre terre et nos traditions m'a également privé de moments précieux comme la quête de sagesse auprès de mon défunt marabout, cher Sidi Maktar Mbake, et de notre vénéré Khalif général des Mourides, Sering Muntaha Mbake. Ces moments douloureux resteront à jamais gravés en moi. Aujourd'hui, il est de mon devoir de rendre hommage à l'hospitalité et au soutien que j'ai reçu de mon frère l'émir du Qatar, cher Tamim bin Ahmad Al Thani, durant mon exil. Sa générosité et sa bienveillance m'ont été d'un grand secours dans ces moments difficiles. L'accueil et les opportunités qu'il m'a offerts ont été une source de réconfort et d'apprentissage, me permettant de continuer à œuvrer, même à distance, pour le bien de notre pays et de l'Afrique. Je tiens à lui exprimer ma plus profonde et sincère gratitude. Je tiens également à adresser ma plus profonde gratitude à tous les Sénégalais qui m'ont rendu visite en prison, m'apportant leur soutien et leur solidarité Votre présence et vos paroles d'encouragement ont été une source d'inspiration et de force pour moi. Permettez-moi aussi de remercier du fond du cœur nos militants dévoués et sympathisants. Malgré les obstacles et les défis, votre fidélité indéfectible au Parti démocratique sénégalais est le témoignage de votre engagement et de votre croyance en nos idéaux. Votre résilience et votre détermination sont le socle sur lequel nous bâtirons notre succès futur. Ensemble, nous avons fait preuve d'une force remarquable et avons maintenu vivant l'esprit de notre grand parti. C'est d'ailleurs dans ces moments difficiles que j'ai appris la valeur inestimable du pardon et la nécessité de ne garder aucune rancœur. J'ai compris qu'en cultivant la paix intérieure et en libérant notre esprit de ces sentiments négatifs, nous créons les conditions propices à la réconciliation et à un avenir meilleur pour tous. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé à mes parents, qui ont joué un rôle primordial dans ma vie. En effet, ils m'ont toujours soutenu et encouragé à donner le meilleur de moi-même et ont été une source constante de motivation, de résilience et d'inspiration. Mes alors que mon exil touche à sa fin, je me tourne vers l'avenir avec espoir. 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la des chemins. Continuerons-nous la voie de la division, du renoncement ou choisirons-nous l'unité, la réconciliation et l'ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous Ces derniers mois, nous avons tous été les témoins d'un phénomène alarmant qui touche le cœur même de notre pays. Le drame de ces trop nombreux jeunes bravant les dangers des pirogues ou empruntant des chemins périlleux à la recherche d'un avenir meilleur en dehors du Sénégal. ce désespoir qui les pousse à risquer leur vie, faute de perspective, est un cri silencieux qui interpelle chacun de nous. Je ne peux pas accepter que des Africains meurent dans la mer ou dans le désert. Cette situation ne saurait durer. Nous devons agir ensemble pour offrir à nos enfants un avenir meilleur, où ils seraient assurés de bénéficier des promesses du Sénégal et des potentialités inexploitées de l'Afrique. 2024 doit être l'année où nous fixerons enfin un véritable cap. Mon vœu le plus cher est qu'au Sénégal, la jeunesse se sente inspirée, soutenue, pleine d'espoir en son avenir. Il est donc impératif de créer des opportunités d'emploi, d'encourager l'entrepreneuriat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 ne sont pas une fatalité. Mon expérience personnelle, marquée par l'adversité, m'a enseigné la résilience et la foi en notre potentiel collectif. Le Sénégal regorge de ressources, d'un riche héritage culturel, son peuple est dynamique et innovant, ses atouts sont les fondations sur lesquelles nous bâtirons un avenir prospère. La prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 est une opportunité précieuse pour réaffirmer mon engagement pour un Sénégal uni et florissant. Je me présente avec la ferme intention de restaurer la fierté nationale, de rassembler tous les Sénégalais autour d'un projet commun. Ma volonté est de gérer toutes nos ressources, notamment pétrolières, minières, foncières, aïeutiques et agricoles, avec transparence et efficacité pour le bien de tous. Je vous propose de nous engager en priorité sur des réformes éducatives de grande ampleur, pour donner toutes ces chances à notre jeunesse, pour investir dans des infrastructures durables, stimulant notre économie et pour renforcer nos institutions afin d'assurer une gouvernance juste, équitable et transparente. Ensemble, Explorons les voies innovantes pour valoriser notre agriculture, soutenir nos entreprises locales, promouvoir l'entrepreneuriat. Je m'engage à être à votre écoute, à comprendre vos besoins et à travailler sans relâche pour répondre à vos aspirations. Ensemble, faisons du Sénégal un exemple de démocratie, de prospérité et d'harmonie sociale. Mes bien chers compatriotes, L'année à venir est cruciale pour notre pays. Nous avons l'occasion de choisir un chemin différent qui mène vers un développement inclusif, vers une économie dynamique et performante, bénéficiant à tous, et vers une gouvernance plaçant l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Candidat à la présidence de la République, je renouvelle mon engagement envers vous. Je suis résolu à travailler pour un Sénégal uni où chaque citoyen pourra réaliser le projet qui lui tient à cœur, où l'égalité des chances ne sera pas un simple idéal, mais une réalité concrète. Je tiens à vous adresser mes voeux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Qu'elle soit porteuse d'espoir et de paix pour chacune et chacun de vous et pour notre cher Sénégal. Que la paix et la prospérité soient avec chaque famille sénégalaise et que notre cher pays recommence à briller comme un phare d'espoir et de progrès en Afrique et dans le monde. Ensemble, agissons résolument pour un Sénégal démocratique, pour un Sénégal moderne et dynamique, pour un Sénégal fier et ambitieux. À très bientôt au Sénégal. Bonne année à tous et que Dieu bénisse notre pays. Deweneti, vive le Sénégal, vive l'Afrique.